jàpp noor bu Sindiaga ca Casamance tàng jër la def ci diggante soldat yi Sénégal yi ak fi PMFDC yi ubbi l'observateur ba démb ci alxames ji rek journal bi nee nañu gaañu fetelante lañ fa yendoo ba l'armée bi faat ci fipp ya lim bu takko donte sax l'armée bi ñàkk na ca benn soldaar yi seen ñaari ñu nekk i ñooñam jommi jomeet la fan de sécurisation ak opération de démantèlement yi base yi rebelle yi amoon ca nord bu Sindia yépp le témoigné mi ngi laaj ndax du aso bu mujj ci kaw waa ji di Salif Sadio njiital fi PMFDC yi ne taxawaay ak dogoog njàmbaar gi jàmbaar yi nekkee ca Casamance fan yi di fa wane doole ju mat sëkk ndax du laa fi Salif Sadio yi ñuy bëgg a damm Sud Quotidien nañu am na benn soldaarub Sénégal bu fa daanu waaye njiital fi pii di Salif Sadio li mu ci ñàkk ci élément kenn xamul nu ñu toll fi ñu toll ni ñu toll ci jaaxle gu rëy ak boobu tëju ràpp Vox Populi nee nañu ñoo di wa ci Rufisque juróom-ñetti mool di ay nappkat ñoo réer seeni mbokk depuis le 2 ñaar fukki fan benn ci weeru février yéenekaay bi nee nañu ci lañu fi fi jóge woon tàkk dem géej booba ba tey seeni mbokk déggatuñu ci ñoom dara xamuñu fan la leen jant bi di tiim ñu bari ci mbokk yi nee nañu leen rek leen dese jamono ji moo di di julli di ñaan tey dunde yaakaar ne dinañu dellu si ñu jóge ta ngéej te wax ci Pikine yëral xët mu njëkk la Sénégal lu jëm ci wàllu aménagement ak développement bu banlieue bu Ndakaaru Macky Sall lancé na ab plan spécial ngir diwaanu Pikine te taxaw na ci tem firnde li laas nañu moo di ca CRD doon def démb ci njiital ministre Omar Gueye ca digg CRD ba le président Macky Sall woowee téléphone ministre Omar Gueye ngir bëgg xam fan la yëf yi toll Malick Gaye directeur général bu AGETIP la Sénégal nee nañu leeral na fa instruction yu président Macky joxe jëm ci liggéey marché syndicat ba ca Pikine nee na président bëgg na ñu tàmbali yi fukki fan juróom ci weeru avril mu di marché bu ñuy liggéey ci ñetti hectare ak genn boo xam ne dafay ànd ak lépp lu marché bu baax te moderne war a am direct news ne ñu njiital AGETIP El Hadji Malick Gaye ci li président Macky santaane mu di 15 gi njiit réew mi bëgg ca Pikine AGETIP sànjaafu na ko ñu sànjaafu ji politique bi ak l'observateur mi ñu xëy xibaar ne ginnaaw parti bii di PCS jéngo bu Boubacar Camara waa MCSS Fulak Fayda génn nañu ci coalition Yewwi Askan Wi musicien bii di Idrissa Diop doon it vice président bu parti MCSS Fulak Fayda nee nañu dañoo seetlu ay njuuj njaaj ak ay magu yu dallu seenum xel ci biir coalition Yewwi Askan Wi moo tax ñu buub seeni kaake dem seen yoon a carte gi ba mu jaxasoo Tribune ne ko ginnaaw waa gëm sa bopp ak waa yeewi askan wi taxaw ne duñu laal parrainage ci élection législative yi Abdoulaye Wade ak i ñooñam ñoom it mu di waa wàllu Sénégal nee nañu parrainage du fi am parrainage gi waral coow leeg mbambuli journal l'info ne nañu bu dee am na ci ku mu baax a kës néew moo di Macky Sall ne au moins mën na koo xiitili ba ay liste parallèle du am ci waa këram yi kenn ci waa këram yi moo Macky Sall di Zahra Iyane Thiam mi ngi wax ci la Sénégal ne képp ku dugg ci ay loo ci góobe lu mu xamul fan la koy gare mooy ndaw si ci l'observateur yéenekaay bi nañu doomam ju jigéen lañ doon génte mu bëgg koo làngal yebbil ko tax mu dem triyande ñaari moroomi jigéenam ay tissus de valeur yu toll ci ñaari millions